le 2 avril après le 2 avril président dafay jeexal mandaam le lui il dit nañu waxtaan ñu xool de ce qui va se faire après le mais mais man damay dem yokk ko ci. mais man damay dem waaw yokk ko ci. mais ñun on une constitution bu ne bu bu bu organiser la vacance du pouvoir. Mm-hmm. président assemblée nationale en cas de décès d'empêchement. définitif de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend l'intérim et il doit organiser les élections entre 60 et 90 jours. mais mbir mi leer na lan lañ ciy waxtaanaat. non xamul loo ñu ci waxtaan parce que dafa am ñaari situation yu constitution bi prévoir bu ute ak li nga xamante ni moo am constitution bi dafa prévoir ne su amee vacance du pouvoir. ñetti mbir rek nag moom moo indi vacances démission du président décès empêchement définitif ñett yooyu moo mun a indi vacances du pouvoir su amee président assemblée nationale mooy assurer suppléance bi et tenu d' organiser l' élection dans une période de un de de trente jours à quatre vingt dix jours président assemblée nationale. mooy sànq li ma doon wax si ñuy jël benn waxtaan bi président mooy organiser élection yi fii kooku ku ñëw mooy organiser élection bi. nekkuñu ci situation boobu mu am beneen situation boo xam ne constitution moo ko prévoir article 36 article 36 dafa ne le président élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur alinéa 2 le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur mu am ñu jàpp ne loolu li mu biir li mu biir mooy Sénégal su fekkee ne dañuy ñëw ci moment boo xamante ni on n'a pas pu organiser l'élection pour une raison ou une ju organiser élection bi waaye biñ koy organiser ñu yéex koo commencé bu mu am retard ñu ne loolu su amee président bi nga xamante ni moo fi nekk day toog ba nga xamante ni kële fal nañ ko ba pare ñu sauve passation bi waaye dañu tàmmoon te loolu soo yàggul mooy souvent avril le mandat bi doon jeex. en 2000 en 2000 Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu ngi def passation le premier avril 2000 président Macky ak Abdoulaye Wade def 2 avril ñu jàpp ne avril la parce que avril pare woon nañ élection yi su ñu organisé woon élection yi même le 25 février 2024 mu am ko gagné premier tour le 10 mars mu jeex. 15 mais am na juriste yu naan article 36 loolu lay or période boobu lay organiser. non non non comprendre le 25 février. mu am ku gagné il n'entre en fonction qu'à la fin du mandat. Non, non, non. de son de son de son c'est-à-dire. ki gagné élection bi. waaw. Ah. ki ñu gagné. non ki gagné élection. non ki ñu gagné. waaw ah. le président sortant. non cette fois-ci on est on n'a pas un président sortant qui compétit. non dama ne su fekkente ne dañu dañu non non non le président sortant disons le président sortant du kii gagné le président sortant mun na ko ne def nañu proclamation définitive le 10 mars le 15 on fait la passation. non mais article justement il y a l'article 36. article lu mu wax. mu ne le président en exercice. Mmh. reste en fonction reste en jusqu'à la prise de fonction de son successeur. mu mais euh, non mu ne le pré mu ne et premier alinéa bi mu ne le président en fonction il prend fonction à la fin du mandat de son prédécesseur. mu ne ko mais mars laa ko amul non amul de euh, foofu kay prévoir ñu fa dérogation. deux mille. waaw. kañ la ñu pare élection bi le cinq mars. waaw la ñu pare Abdou Diouf. dix neuf mars. dix merci dans l'alternance dix mars lañ ko pare ñu war a def passation bi quand le trois avril Abdou Diouf daal dañ ko def le premier. mais c'est la fin du mandat. non le premier c'est pas la fin du mandat su fekkee ne le 3 avril la defoon. parce mais mais quelques jours boobu mënoon na nekk mars. wala mu nekk vingt neuf mu ne ko dama am rendez-vous médical France nañ ko def le vingt neuf mars loo def premier avril mais su la neexoon nga def ko vingt cinq mars xam nga la bëgg a wax amul ci constitution Sénégal benn date bu ñu wax ne mooy marqué la fin du mandat amul koo gis nga amul. mais dañuy calculer le mandat c'est cinq ans. Mmh. ça le mandat de Macky a commencé. le 2 avril. non xam nga dafa amoon benn débat en 1988 entre Abdou Diouf et Ablaye Wade. <coughs> Wade a dit dans une déclaration qu'on appelle déclaration de Diourbel le 27 février 1988 Abdou Diouf ne sera plus président de la République il sera candidat comme moi et nous serons deux candidats à chance égale Abdou Diouf ne sera plus président on ne plus d'ailleurs président. Abdou Diouf répond que non, mon mandat le 3 avril, je serai toujours président. La Cour suprême a rendu une décision pour dire que non, le début du mandat est marqué par la prestation de serment. Qui l'a pour 3 avril. Il n'y a aucun texte prescrit. Aucun. Aux États-Unis, la date de début du mandat est inscrite dans la Constitution. Chez nous, non. C'est la Cour suprême qui a dit le début du mandat correspond au jour de l'installation du président et de la prestation de serment un arrêt la Cour suprême moo ko wax sinon y a aucun texte ma jox la benn exemple. waaw ah, terme du mandat c'est le avril même président wax na ko nee na contrat am avec l'État du Sénégal avril la jeex. pourquoi mu wax ko pour pour pour pourquoi contrat bi jeexul jeexul la. non parce que moom xam na ne pourquoi jeexul le na ne mooy fin wu mandat bi. non dafa jàpp ne mooy fin wu mandat moom loolu la jàpp et c'est bien mais man waxatuma li Macky Sall jàpp je suis en train de la science constitutionnelle ma rappelé le 88 le débat qu'il y a eu sur la fin du mandat le président Wade a considéré pour est sorti tout de suite 88 la fin du mandat c'est le 27 février la waxoon jour de l'élection rek mandat nee na dañ la élire le février 27 février su na mandat bi jeex na Abdou Diouf ne ko non moom mandat jour bi ma defee prestation de serment lay jeex la cour suprême a rendu un arrêt c'est une jurisprudence au Sénégal qui a fixé la fin du mandat et le début du nouveau mandat au jour de la passation. donc vous voulez nous dire que le avril.

encore une fois su ñu defoon élection bi le 10 mars kenn gagné su neexee président bi mu ne ko le 15 mars. mais fii on fait la passation. ma joxe benn exemple su ñu defoon par exemple élection bi ñu ñëw def premier tour deuxième tour bi amay problème ñu reporté ko au 20 avril au 25 avril ñu def deuxième tour bi. on applique l'article 36. on applique l'article 36. l'article 36 est prévu au cas où. pour une raison ou une autre, pour un facteur ou un autre, pour un événement ou un autre, pour des circonstances ou d'autres, on n'a pas pu organiser à temps l'élection présidentielle. Ou alors, l'organisation de l'élection présidentielle ne s'est pas terminée avant le 2 avril. Donc si le président... C'est une clause de sauvegarde. Reste. Pour assurer la continuité de l'État. À partir du 2 avril. Mmh. Si non, le... il Nena, ci dialogue bi la. non, non. il faut que li mu wax na mu leer. ah bon président li mu wax leer na de dafa ne man le 2 avril jeexal naa ak Sénégal damay dem sama yoon damaa yàkkamti sax dem. la ñu waxtaan. non non gars yi ne ko non président doo dem doo sànni suñu réew ci mbedd mi biñ la koy jox dañ la ko joxoon kayit ñi ne ko président ki la war a ki la war a remplacer dañoo bëgg nga seere ko loxo bi nuyu ko jox ko kii jébbal ko lengee yi mu leen man ma lecture man Macky Sall c'est que 2 avril day jeex te damay dem. d' accord mooy ça non mais moom c' est sa position nee na 2 avril sama mandat jeex na damay dem gars yi ne ko non président bul dem bàyyi loolu réew mi mën a am vide constitutionnel discontinuité te loolu baaxul ci réew te du vacance de pouvoir mu ne leen waxtaan leen ci ci dialogue bi su amee consensus on peut envisager ma continuer. ba yu pare élection bi. foofu moom nañu waxtaan moom su amul cons damay dem. <laughs> foofu moom nañu waxtaan ah, moom su amul cons damay dem moom pare na non foofu nañu waxtaan. oui. parce que président quand même dem bàyyi noonu réew mi. oui mais buggul coow. non du coow. moom dafa gis ne affaire yi su combatté coow ñu foog ne moom dafa bëgg doolil dafa bëgg doolil boppam ay quelques semaines mais mu dem. waaw mais moom moo dugal jàngoro bi na faj jàngoro bi mu wër. ça nag c'est le dialogue qui décidera. parce que je pense que cas bi. Euh, article 36 prévoiru ko. non article 36 dafa non c'est pas l'article 36. si c'est 36 l'article traite de euh, des cas d'empêchement de vacance du pouvoir ban la. 30. 34. 9. 39. Mm. Euh, quand cas bi ñu nar a toll nii un président qui di que le terme de mon mandat c'est le 2 damay dem. prévoiru ko trois cas d'ouverture moo am. décès empêchement définitif d'émission nekkuñu ci benn. donc le de moom bu ko neexee mu dem. bien sûr loolu la wax après dañuy appliquer euh, la disposition euh, vacance du pouvoir wala dañuy retourner conseil constitutionnel. waxtaan plus conseil constitutionnel. mais bu ñu waxtaanee. yow da wax dañuy dellu assemblée man la bu ñu dellu assemblée dañuy dem. conseil bu ñu waxtaanee ba ñu ne mën na continuer il reste légitime. il ne viole pas la loi sur la base de l'article 36. Il reste jusqu'à l'installation de son successeur. Si le Conseil constitutionnel fait une interprétation de l'article 36 qui est conforme à ça. bu ñu delloo loolu leer na de gars yi ñoo bëri coow ñoo bëgg coow rek. bu ñu delloo conseil constitutionnel nag nu muy demee que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur mais comme gars yi mais kañ la Macky Sall daan déglu coow di bàyyi Macky Sall mosul déglu coow bàyyi Macky Sall dara mosu kaa. mosu koo mosu koo changé loo mais mais tolluwaay la. tolluwaay la am na foo xam ne dafa tolloon daf il était acteur politique dafay xeex doo ko yuuxu mu daw doo coow mu daw mais fi mu toll nii mandat bi jeex na. waaw mandat bi jeex na. Ah, mais donc moom tollul fi nekk c'est de sa responsabilité. je suis en en en en mu yoonam. loolu nag moo tax mu ne oui à une seule condition waxtaane ko ba jàpp ci consensus. su ci waxtaanee mooy commission bi may présider. ba mu am consensus mën naa envisager dem ba élection bi jeex ma installé sama successeur dem. mais au cas où. su consensus amul nee na ma bàyyi waaye nag lu ñuy def conseil constitutionnel moo koy wax. bu boobaa conseil constitutionnel nan lay doxalee au kaw où mu ne moom day dem le deux. non le conseil peut bon déjà un le conseil peut dire dans son avis si est sollicité si l'avis est solicité mun na wax ne non article 36. toogal jusqu'à l'entrée en fonction. Wow. waaw. ou bien conseil ne déet empêchement définitif lañ koy considérer parce que du décès du démission mais empêchement définitif la de par la loi ou de par la constitution président assemblée mooy ñëw. pour un intérim de deux à trois mois. maximum quatre-vingt-dix jours.